asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi nga xam ne ñoo baaxoo di seetaan seen sit bi de asalaami point net ci seen compte youtube bi de asalaami tv ñoo ngi amaat mbégte di teewaat ak yéen ci ci seen ñaareelu numéro ci tombe bis bi di jaajëfal baax bokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp yépp di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp di ñaan yàlla mu def jàmm ci réew mi mbokk yi tey sunu ñaareelu numéro mi ngi jëm ci wàllu jàmm ni ko sëriñ bi waxe woon te ku ne xam ne mbokk yi jàmm lu waaye am te amoo ko da nga wàcc loola dem wuti jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj euh, muy lu am solo loo xamante ni bii foo dégg lu métti rek wala safaan jàmm fa nekkut waaye fu jàmm yandu euh, xéwal rek a fay yandu sëriñ bi waxoon na nag jàmm lu ñuy lu ñuy yéene ci ab xol la di ko wax ci aw làmmiñ te di ko def ci ay cër jàmm danga nga koy yéene ci sab xol yéene ko ñëpp yéene ñëpp am jàmm comme moom ni mu ko defee woon moom Seexuna Ahmadul Xadim waaye nag sooy waxit lépp say wax nga nga di ca sóoraale jàmm lépp loo xam ne boo ko waxee mu jur aw ay nga lii du ko wax waaye lépp loo xam ne soo ko waxee mu jur jàmm nga ne lii mën naa koo wax ndax làmmiñ dafa dafa doy waar boo xoolee ci làmmiñ bu dee nopp amut kubéer bakkan amut kubéer bët benn kubéer bu nooy la am mu di ay xef waaye nag gimiñ boo ko xoolee làmmiñ fa mu nekk am na défense à faire muy ay bëñ amaat beneen défense muy ay tuñ kon saa yoo dindee say tuñ ñeppi say say bëñ di génn saw làmmiñ war nga caa wax loo xam ne du yee fitna loolu moo tax euh, sëriñ bi ne waxawi di lisaana xawlal xayri na nga miinal sa làmmiñ wi ci wax ju yiw loolu mooy jur jàmm kon jàmm boo ko yéenee ci sa xol ba noppi da ngay fas yéene lépp looy wax nga di ci sooraale jàmm soo ko defee ba noppi nag lépp looy jëfit na doon loo xamante ni bii bu sottee jur jàmm lépp looy jëf ci àdduna na doon loo xam ne bu sottee rek jàmm cay juddoo soo ko dee yéene di ko waxee te looy jëf mu doon luy jur jàmm incha allahu rabbi jàmm da ko am loolu moo tax Serigne Touba Xaadim Rasul yàlla na ko yàlla fayal dëkk bi mu njëkk a sanc ko Daaru Salaam muy këru jàmm loolu mooy jàmm gën ba muy wut ab tariixa it defu ko tariixa boo xam ne bodd konte ci biiru xet mën na caa feeñ wala mënees na koo askanale ci leneen moo tax mu waxoon muridullahi te loolu boo ko seetee mbooleem koo xam ne sunu borom subhaanahu wa taala moo la bind te nga am diine nangu ngaa delluwaat ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu ne kon ñun ñi àndaa di delluwaat ci yàlla ñëpp ñoo bokk tariixa bi loolu yaakaar naa ne bokk yi sëriñ bi ci ay màndargaam jàmm rek la jëkk a woote waaye nag lii mu sank it ba mu koy wootee jàmm rek tax mu woote ko kon jàmm lu ñuy yéene lay doon waaye lu ñuy wax lay doon waaye lépp looy jëfit day doon loo xam ne bu feeñee jur jàmm moo tax Serigne Touba dëkk bi mu njëkk a sanc mu ko Daaru Salaam di kërug jàmm tariixa bi mu nekk di ci woote mu tudde ko Muridullahi te loolu mooy képp ku jëm ci yàlla ñoo ngi santaat ñëpp di leen gërëm di leen bala aq di leen bala aq di ñaanal incha Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàllal gën a yàggal gën a dolli ak wéram yàppale ko ba naal yi mu naa al islam yëpp moo àggale ko barikat Cheikhul Xadim ñu joxaat leen rendez-vous ci beneen tomb incha allahu rabbi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.